nuyoo bi nee mi ngi ci jiital kilifa adduna yi nga xam ne ñu ngi fi mu tam li Antoine doon nii ak ñi mu àndal ñëpp ba ca ña gën a ndaw ci bureau yi te ñoom ñu ngi leen jotal seen cant eh, di ak cantam bu baax li nga xam ne li ngeen def de xam na ko bu baax a baax ndax boole ngeen ñett yoo xam ne daa am solo ci nit muy seen jëmm ak seen ñaq ak seen waxtu lépp boole ngeen ko indi ngir sëriñ bi war maale ko ko loolu mi leen di sant bu baax. ñaan suñu borom mu dool leen taxawaay bu baax te dool leen jubale te dool leen barkeelu seen liggéey te lu ko yaatal nga xam ne fii ngeen nekk ah noo ngi leen di sant waaye ñu tam sant yàlla ndax ab teen la rek bu ñu roote kenn ku indi sa baat indi sa ndab boo roote ñu duyal la teen bi ndoxum paju aaju moo ci ball kon ñun ñu ñu fi nekkee ni ngeen fi war a ñëwee yaatal nañ leen nag bu baax a baax a baax a baax dañoo nar ci dara sëñ lépp loo xam ne aajo woom ñëw te ñëw ko fi suñu moom defal leen ko waaye comme bind ci dara sëñ bi leen sant bu baax di rafet sant bu baax di gisit nag jëf yi nga xam ne jëf ngeen ko fii diggante ndox ak ak làmp ak yoon ak yeneen yeneen ak yeneen yeneen loolu mu ci laaj ba suur muy leen ko leeralal ah, di sant mu gannaaw bu loolu wéyee ñu dool nag di sant kilifa seen kilifa nga xam ne mooy leen yebal ndax mënoo leen yebal mënoo leen tey waaye waaye am ngeen nag sañ su yéen seen bopp ngeen ñëw seen bopp ngir leen yéen bëggal seen bopp di wut di wutukaay la kon nag noonu lañu sant baax di ko leen ñaan ngeen di ko sant ci yebal sëñ bi leen yebal di ko sant ci ndimbal yi nga xam ne nga xam ne na ko yëpp di ko sant ginnaaw bu loolu indi bopp yi nga xam ne ñoom ñooy màggal te dalal ñuy màggal si mm-hmm. sant na bu baax a baax seenu taxawaay ndax ñoom it képp lay seen kattan lu ñu man ci taxawaay ak jëf def nañ ko te fu nekk fu ne fu ko sëriñ Basiru nekk fu ne bokk yi fekk nañ ko fa ak seen taxawaay ak seen pas-pas ak seen bëgg ak seen doyloo kon loolu noonu lañ sant leen ñaar bu baax a baax loolu ñëpp ñu dal lu dellu maase ñaanal ki nga xam ne mooy sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa Mbàkke loolu ko gën koo dëgëral loolu ko jàmm ak tal ba mu gën a mën a ànd ak yéen ngeen nekk mu bokk nekk ci ginnaawam ñu liggéey liggéey mu jëm kanam jërë ngeen jëf tuwaat ka sant na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal euh, na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal bismillah adduna bi fay na rek tàllalal amin amin na ñëpp tàllal amin amin amin Mbakke amin amin amin amin amin amin amin jërëjëf ñu jóg naan may kilifa yi